émission de tendance du net tendance du net nak bu ngeen ko ngeen xamni lepp lo xamanteni euh, amna ci net bi rek dañ koy en détail ak tam nga émission euh, tendance du net bu ci rek am yu ñu am yu ci wax commentaire quelques extraits vidéo yi lañ sélectionner. ngeen tamit suivre même bu ngeen suivre globalement euh, li nga xam information yi nga xamante ni mooy daw di leen ko kar tamit li nga xamante ni moo di tendance du net muy am chaque deux jours les lundis les mercredis ak les samedis en direct lay doon fi nga xamante ni moo di Thiès Info ki leen koy jot euh, jottali nag di ki nga xamante ni moo di Sister Eva fii lay doon saa su nekk rek Thiès Info euh, Thiès TV tey nag ma dikk ak ci li nga xamante ni moo di sommaire euh, tendance du net de ce samedi tey nag pour. ñu démarré nag dañuy dikk ci nga xamante ni moo di euh, policier amul yaakaar policier amul yaakaar nag daanaka ku nekk ku ne gis na ko fi nga xamante moo di ci net bi waaye dina dikk ak ñun ci li nga xamante moo di lan moo waral turu amul yaakaar ak lu tax ni muy doxalee ci li nga xamante ni moo di wàllu liggéeyam ñeen ñi ngi ko ciy tagg ñenn tamit ñi ngi ko ci eh, def li nga xamante ni moo di xas waaye tamit nañ dikk ak ci nga xamante ni moo di Baye ñu gën koo xam Baye mi si jal bi nekk artiste yi Thiessois moom tamit di def buzz ci li nga xamante ni moo di ci wàllum théâtral ci ci net bi di def li nga xamante ni moo di comédie moom tamit dalaloon nañ ko ci émission bi nga xamante ni mooy feeñal mu doon ci doon ak ki nga xamante ni moo di Sista Kaja waaye nañ dikk ak yéen tamit li nga xamante ni moo di cérémonie yi nga xamante ni ñooy ñëw ci week wi avant première dinañ am ki nga xamante ni moo di Omar Dem nekk euh, Omar Dem nekk nga xamante ni moo di marabu politicien moom tamit amal li nga xamante ni moo di conférence dinañ dikk ak yéen ci li nga xamante ni moo di euh, ambiance du week-end aussi ci li nga xamante ni moo di Abba Show mi fi nar a ñëw ak nga xamante moo di ab euh, soirée Pambay et le groupe Misaal ak nga xamante ni tamit mooy le grand Seka Seka et le Royal Bad moom tamit dinañ dikk ak yéen ci li nga xamante ni moo di ci tendance du net waaye dinañ jeexalee fi nga xamante ni moo di euh, pharmacie du garde nañ dikk ak ci li nga xamante ni ñooy pharmacie yi nga xamante ni ñooy ay garde ci weekend bi fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar mbokk yi nag mi ngoog sommaire baa ngoog mu nga xamante ni moo di ci euh, émission wu tendance du net mi ngoog nag sommaire baa ngi noonu nañ dikk ak yéen léegi-léegi ci li nga xamante ni moo di euh, détail am xuma tendance di net nag mi ngi noonu saa su nekk rek nii lay demee les lundi mercredi ak samdi en direct nga koy am fi nga xamante ni moo di euh, Thiès TV Thiès Info saa su nekk rek nii lay demee nee naa leen benn information du leen réer même information bu leen rëcc sax ñun dinañ ko dinañ ko jeex indiwaat ko di ko génn ci nga xamante ni moo di ay commentaire di ko génn ci nga xamante ni moo di aussi ci ay yeneen reportage yo xamanteni ni ko dinañ ko amal fi nga xamanteni modi ci yeneen i thème yeneen i euh, information yo xamanteni def na buzz nit ñi ñu ngi ciy laam-laamee ku ci nekk di ci joxe sa point de vue dinañ dik ak yeen tamit ci sa su nekk rek ak ni ñi défé émission bi sa su nekk rek ak sommaire bu bess bi ñu leen di indil sa su nekk rek ak tendance du net bi ñu leen di indil fi lay xewé fi lay amé chaque lundi mercredi ak samedi fi ci Thiès TV fii ci Thiès Info ki leen koy joktal ci ki nga xamante ni moo di la Sista Eva waaye nag du def lu dul rek dikk ak ci ki nga xamante ni moo di euh, policier euh, amul yaakaar policier amul yaakaar moom nag mi ngi dikk ak ñun ci li nga xamante ni moo di wàllu liggéeyam lu tax mu defal doxalee ni liggéeyam ba kenn Euh, benn chauffeur bu mu arrêté rek du ko am du am kanamu jokk def ko li nga xamante ni moo di euh, corruption parce que wanewul kanam googu moom nee na liggéey bi euh, ni mu ko fekkee noonu la koy doxalee te tamit buy dem noonu la ko fi bàyyi ndax ku ci nekk rek boo ñëwee am nga wàll boo ci liggéey li nga xamante ni nag moo di turam bii di amul yaakaar tamit lu waral amul yaakaar ñu papaam tuddee ko ko moom tamit dikk dikk na ceeg ñun waaye duma def lu dul rek balaa maa ñëw ci détail bi ak commentaire bi ñu dem déglu ki nga xamante ni moo di le policier bi nga xamante ni mooy amul yaakaar te chauffeur yëpp yi nga xamante ni daanaka dañ koy daw bu ñu nee amul yaakaar moom monte fii sax da ngay gis kenn bu ko njëkkee gis daal di moom tamit def demi tour daw wala mu envoyé message wala euh, envoyé wala mu signalé yeneen mbokk chauffeur yi daal amul yaakaar moo monté foofu lan moo waral moom ak digganteem ak chauffeur yi ñuy def tendance nañ dem seetaan ko léegi léegi. sori ngir bàyyi xel képp ku jàdd yoon ci tali bi ak amul yaakaar ku jàdd mu teg la ci yoon. dama gëm liggéey comme que yàlla dafa ne liggéey jaamu yàlla la. pour société bi jekk dafa am ay règles yu ñu teg kenn waru koo jéggi. li ñu bind dama ko fi fekk dinaa ko fi baax keneen dina ñëw doxal ko pour société bi dox nag il faut que ñun ñii ñu dénk loolu ñu koy jëfe ku war a jalgati code de la route aussi bu séenee alkaati bi taxaw ah mu taxaw ne ah alkaati bee nga nee taxaw te boo ko càbbee tamit nga teg ko ci yoon bu bu beneen yoonee mu bañ ko defati. fulla ak fayda moom liggéeyam jaamu yàlla la ci moom ba tax na da koo jox ak xam niñ ma jàngal rek mooy nuyoo. nangu say këyit warul weesu ñeenti minutes bu mu xoolee këyit mat ah nga dem bu këyit matul ah loi bi nak fi la ko fek ma tegg la li la yoon wax rek nga dem bureau contravention bi fay sa contravention. bu joxe xaalis nak joxe xaalis da nga dul wol kanam bi muy amé pour jox la xaalis parce que bu gawé nga jël këyit nga wara def li ngay def dina xamni ni ful la nga koy won kon du am taxaw pour wax fofu waxu xaalis waxu leneen. te biir école nationale dañu naan servir ci jom ci fulla ak fayda parce que ku ne nga sàmm doomu aadama sàmm li mu yor mission bu délicat la donc euh, ku jaamu tuuti rek ci loolu euh, gëm naa ni sa ajana taxaw na. boo ne amul yaakaar ku nekkul ci yoon sa fit dem moonte moom. sàmm askan wi rek mooy yéeneem ci tali bi. dañ ñoo dugal ci benn daara jàngal ñu nañ ko jëfee li ñu jàngal nañ ko jëfee honneur la ñu wax. té kër gi ñu nek muy police kenn mënu ko jékal ku dul ñun bu rafété ñun la bu ñaawé tamit ñun la ku nek fi nga nek chef mënul taxaw sa ginaaw wa melni ñëpp nga fa nekkal man mi nek circulation ki jemi hein bu ñu tuddé police warna ci gis bopam amul yaakar di ab alkati aw ragné ko lool wayé mom mu japp né ndariñ la ci police bi nga xamanteni mi ngi bok ci 34e promotion. tur bi nag dafa dafa dama juddu ñu tuddee ma ko maa ngi tudd Mouhamadou Amul Yaakaar Diouf sam pap dafa doon am ay doom yu góor bon saay bu ko amoon euh, dañuy dellu sam borom suñu borom jëlaat euh, mu dem ba am ma nag mu ne ah kii de dama koy tuddee Mouhamadou waaye wax dëgg yàlla comme que ñee ñëpp dem na dem nañu aw ma ci yaakaar mu teg ci amul yaakaar bi looloo indi tur bi. Euh, yàlla nag nangu comme que yàlla nangu na nag maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. di jëmale police kanam ci sunu ndodd gi la ne ku nekk foo mënta nekk li ma lay conseiller mooy nga taxaw institution bi ni mu waree ni mu waree. niñ la tàggatee biir école nationale de mu Mouhamadou amul yaakaar Diouf romb ñeent fukki at yor benn soxna ak ñaari doom juddoo Tambacounda yaroo Thiès ba mu soloo soldaar ba léegi doon royukaay ci police bu Sénégal. mu dikk ñun ci li nga xamante ni moo di euh, li waraloon li nga xamante ni moo di turam boobu lu ci lu tax papa ji def ci li nga xamante ni moo di amul yaakaar waaye tamit dikk ñu ci li nga xamante moo di eh, ci wàllum liggéeyam ndax li nga xamante ni moo di mbirum policier nee naa la li nga xamante ni moo di eh, tali bi ñëpp yamuñu ndax ku ci nekk rek nu la neex ngay doxalee loolu moo waral moom tamit mu jël takku def li nga xamante ni moo di lutte contre la corruption moom nee na kenn du ko corrompre parce que liggéeyam da koy def normalement ndax ñoom ñi nga xamante ni ñoom lañ jël tàggat leen def leen ci biir police ñoom ñoo mën a jagal li nga xamante ni moo di eh, la policier ñoom ñoo mën a jagal li nga xamante ni moo di code de la route moo tax nag moom tamit liggéeyam da koy jox ak akam jox def ci fulla def ci fayda ba tax na li nga xamante ne ñëpp ràññee ko mu nga di ko féliciter di ko encourager ci li nga xamante ni moo di ci position boobu mu taxawee moom mi nga xamante ni moo ci dikkoon ci li nga xamante ni ay leeral di mu xamadu amul yaakaar Diouf waaye tamit nag moom tamit nee na lépp du waaye nekk rek na ci am fulla ak fayda bul joxe mu ko kanam goo xamante ni dañ la ci euh, yebe waaye tamit joxe chaque jour rek kanam goo xamante ni dañ la ciy nawee ndax nag ci sa liggéey ci lañ la mën a yebee ci sa liggéey tamit ci lañ la mën a joxee cër waaye moom tamit moom mi nga xamante ni moo di jeune artiste comédien nekk fi nga xamante ni moo di Ceeskaay euh, euh, benn dëkk ñaari gaar di Baye l'artiste comédien ñi gën koo xam Baye mi ci jal bi ndax moom boo ne Baye sax mu ni la àggal ba si jal bi kon nag Baye mi si jal bi moom tamit daanaka Euh, teral euh, dalaloon nañ ko fi nga xamante ni moo di ci émission feeñal mu àndoon jàkka mu ci doon jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di Euh, Kaja moom tamit nee na euh, fulla ak fayda moo ko may fii mu agsi nii moom tamit tey jii ki nga xamante ni moo di bàyyi si Dial bi moom tamit dikkal na ñun ci li nga xamante ne lan moo tax mu bàyyi école naka la bàyyee école waaye tamit ni mu def ba dugg ci théâtre ak début théâtre am euh, loolu yëpp dikk na ci ñun ci émission bi nga xamante ni moo di feeñal ah, du def lu rek ñu àndandoo dem seeti Baye Miss Dial bi mu ngi doon jàkkaar tey lan moo tax nga di am choix nekk comédien lan moo la dugal ci comédie waaw man nag euh, li ma dugal ci comédie dafa nekk mbir boo xam ne nii mbir bu yàgg la parce que boo dee xool pikin laa yaroo Pikine sama lépp Pikine laa ko defee. bu ma mosaan dem école sax su ma suñu monsieur di booleek ak sama mag bi danaan ko ci comédien la dafay sonal élèves yi parce que nanguwul jàng ay ko théâtre la leen di defloo ay comédie ba biñ may dàq. dama taxaw dama teg monsieur bi ñëwul ma taxaw ci kanam ban fi monsieur bi taxaw di comédie loo di reetaanloo élèves yi bañ jam ci loolu loolu lañ ma dàqee école kon mu nekk loo xam ne depuis ba may nekk xale ma bëgg ko ma bëgg ko di ci dox di ci dox ba tey yàlla dogal lii daal donc ni dal euh comédie bi don la ci yow. parce que dégg na ci biir wax nga né mom lañ la dàqee école. Hmm, hmm. lu nekk la ci man quoi parce que dama ko dama ko bëgg quoi. dëgg la dama ko bëgg te chaaxane wu ko tamit te foyé wu ko wa mu jaral ma lu nekk mais mais mais est ce que bi nga koy def say say wajur àndoon lañ ci lolu waaw parce que man bi ma koy ñëk def bobu sama mag bu jigen mi ngi ma yar parce que bëggul lu dul ma baax mais bobu gisul tamit lu dul ma dem jang pour am fuma wa aduna bi yëpp di pour mën jappalé samay wajur loolu ci djublu won comme amna ko ko ñëk wax ni ko dama bëgg ki jeu théâtre bobu yag na bobu maa ngi gën a ne booy ko nono bay ko mu jang parce que xalé la kon tay buñ diké ma nekk ci ha ah, mu jaral ma mu jugee Dakar dafa ma jaral na ma dawé Dakar daw ñibbi si Thiès fajar 5 h du matin bu sama bagage daw ñibbi si Thiès daal di tok sama ya wax ma bëgg man ko don na ñaw way ba mu ko né ñaw mais de dama ci bolé sama théâtre mune ma ah nit ki de loy nek ta am ci ak fayda insha allah di ci am ndam ta ta man man man sa yaay liggéey na ci sa kër bay lo xamni war lo liggéey war nga ci mën am ndam ma mu yokuma fit tamit yokuma ma sama yaay no demal ñaanal na la dal sama yaay yeb man ñaan ñaan ñaanu da ci am solo ah, ah. deug la ma sha Allah alors donc bay est ce que mën nañ xam bo yow euh, da nga jang def école des beaux arts après après wala da nga continuer non, rek affaire bi don la ci yow. non def ma école beaux arts parce que école beaux arts ko ko jang ba am def na defem wala bac mo fay dugg Munu ma fa dem mais comme amna yenn formation yo xamni da na ka dem def. donc def nga ay formation pour théâtre ok parce que bi mu jógee Dakar ñëw fi doon na top ci benn troupe pour bokk fa difa daw difa daw pendant 2 ans duñ ma nango jël mais après ci lañ ma jël ma nekk fa nekk fa. bu formation amé ma dem après ci la bok Arcos Arcos nak formation yoy tay amna lu ma dimbalé lu bare lu bari lu bari mais sama walu comédie dafa nekkon lo xam dafa nekkon ci man ba bi may nekk xalé mu ko daan foy tout le temps tout le temps dal ma xamni li dal suma suma gëné gorgol dina dem kanam tay gëm-gëm bo ma amon mo may li tay comédien ñi gën koo xam euh, Baye mi ci jal bi moom tamit nekk fi nga xamante ne moo di euh, Kër Kombe di ci yëngu di yëngu ci li nga xamante ne moo di wàllum comédie wàllum théâtre moom nee la actuellement nii moo nekk ci jal bi ci wàllum comédie ndax fi mu toll nii net bi mu ngi fi def buzz net bi euh, nit ñi ñu ngi koy suivre de partout moom mi nga xamante ne moo di Baye mi ci jal bi dégg ngeen ni li nga xamante ni moom la génnee école ndax affaire bi dafa nekk ci moom don la mu ciy fawantu di ci fawantu ba yàlla def euh, ki nga xamante ni moo di euh, maître am dàqi ko ci école bi mu jaaree fa moom tamit kii di grande sœur am jël ko euh, nekk ak moom Dakar di ko yar di ko éduquer ba fi mu toll nii mu moom tamit affaire bi ëpp ko doole mu jugee fi nga xamante ni fàqee fajar Dakar rek ñibbisiwaat Thiès doon def li nga xamante ni moo di wàllum tailleur di dégg ngeen ko ci ay waxam yaay ji ni ko lan nga bëgg doon mu ni ko man daal doon naa def métier tailleur waaye tamit comédie laa bëgg a def boole kook métier tailleur bi yaay ji kontaan ci yedd ko conseiller ko aussi ñaanal ko tamit ndax nit nag lépp looy dem rek wala lépp looy dugg rek nanga ci demee fulla ak fayda ndax fulla ak fayda nag lum la may lu nekk rek du la ko mën a xañ ndax nag fulla ak fayda bi mu def ak bi mu am ak bëgg liggéeyam ak ni mu ko defee dégg ko ci ay waxam moo ko may mu agsi fii mu agsi ci nga xamante ni moo di wàllum comédie ci wàllum théâtre moo nekkoon ki nga xamante ni moo di Baye Miss Dial bi moom mi nga xamante ni daanaka boo stressé sax wala nga xaw a jaaxle tuuti rek boo ko seetaanee rek tubarkàlla mu daal di dàq sa stress nga daal di reeba reeba fàtte say soxla yi nga xamante ni ñoo la ëppoon doole mu nekkoon ki nga xamante ni moo di euh, Baye Miss Dial bi waaye nag duñ def lu dul rek dem seeti ki nga xamante ni moo di Euh, Omar Deme Omar Deme moom mu nekk ki nga xamante ni moo di euh, marabu politicien di waajal li nga xamante ni moo di moom tamit conférence di dem ñu dem rek seetaan li nga xamante ni moo di avant première Omar Deme. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaara di ñaan yàlla xew-xew bi ñu jublu yàlla nañ yàlla may ñu fekk ko ci jàmm xew-xew bi nag du sama xew-xew xew-xewu jullit yépp la ndax boo gisee. Naasi Dieng di nit ku baax xalaat mu ne ñëwal sama kër ngeen def fa benn avant premier ndax mbir mi man maa ko moom. dama leen di leeral nag sama diggante ak moom daa yàgg lool gune gu ci juddu woon maye nañ la sëy nga muy nit ku baax di nitu diine di nga xam léppam yit diine la ndax moom mii tey. bu ñu demee tey ba senegal nit ñuy roy di indi ay kup ci wàllu alquran ci moom lañ ko royee loolu moo ko njëkk a def ay concours teg ay kado di di di defar alxuraan moom nag loolu rek mooy liggéeyam mooy nit ku baax mooy Nasib Dieng mii man xam naa mbaaxaayam xam naa amul benn nit diine bu may fréquenté ci biir Sénégal ma toog ak moom fekk moom toogul ak Nasib Dieng day wax naa naw nit ku baax la nit kuy jàppale diine nit koo xam ne la alalam bu mu am yépp ci diine la koy def mu na dama ciy dox nag di ci jàppale sama frère sama xarit Alaaji Mor Gueye day man maay moom day mban maay moom di nit ku baax di nit koo xam ne aussi nu mu yénoo bis bi alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla di gërëm nag ñi ci nekk ñëpp di gërëm ñi ciy jàpp ñëpp ak groupe sopp na bi bawuma kenn mënumaa lim kenn am na nag xadaratu juma boo xam ne bi ma ci waxtaan ak sama frère Amadou Sambakan mu ne ma man maa koy tey ndax moom suñoo ñoo bokk benn maam mu ne man man ci xadara bi dinaa ñëw mel neen naa avant premier bi dama fi teewal ndax dinaa ñëw ci xadaratu jumaa bi ñëw teewee ko ndax ki nga koy defal sama nijaay la di gërëm Matar Sow di gërëm Diop communicateur nii di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci politique bi ñi gërëm ñi nga xam ne ak këru diine yëpp man damaa jaxasoo ak ñoom man aw ma noonu ñëpp benn lañ ci man mais naa si mii li muy béy ci l'islam bi wax dëgg yàlla ñëpp teg nañ seen bët keroog barke démb dégg ngeen natt bi ñu bi dal jullit yi dafay jóg wax ci xuus ci def ci wax ci lu lu rafet lu xew ci diine naa si moo ci man man sama mbir mi da koy yenn fu mu toll daf may woo naan ma fu mbir mi toll ak foo ci toll ma ne ko awax ah, wax dëgg yàlla ñoo ngi ci def ci ñaan rek ci barke Serigne Mourtala mi nga xam ne moom nga yaakaar ndax naa si daara yi rek lay taxaw man am naa firnde bu wér ne daara yu fi nekk yoo xam ne dañoo sonn wallaay day ñëw def ci loo xam ne loo xam ne man du ma ko sax xam di si def lu bari di doomu nit ku baax aussi wax dëgg yàlla nit bu demee ba Serigne Mourtala nga xam ne jël la teg la loxo jël lépp di ci woo aussi frère di doomu baayam di Serigne Takko Mbacke ak Serigne Mamour Mbacke bawuma kenn bawuma benn tarix bawuma waa kër maam Cheikh Ibra Fall bawuma laayeni bawuma kenn bawuma kenn mbir mi daal samay waajur laay ñaanal ñu ñaan yàlla yàlla may ñu fekk ko ci jàmm allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa salli mi ngoog moo nekkoon ki nga xamante ni moo di euh, Omar dem nekk bu politicien moom tamit mu amal euh, cérémonie religieuse fi nga xamante ni moo di fee euh, ci six di ko amal 6 avril fële ca Grand Thiès ci jumaa ji moom nag mi ngi ci woo mbokki jullit yi di ci woo mbokki taalibe yi di ci woo ñi nga xamante ni ñoo di nitu diine yi di ci woo tamit ñoo nitu alxuraan yi nitu daara yi moom mi nga xamante ni moo di Omar dem di ngeen ko ni mu waxee ki nga xamante ni digganteem ak ki nga xamante ni moo di eh, Nancy Dieng nit nitu diine la nit koo xamante ni la ñi nga xamante ni dañuy dem di jéggaani def ay concours di indi ko fii Sénégal sax moom moom mi nga xamante ni moo di Nancy Dieng moo ko njëkk a def fii moo njëkk a def ay concours jox euh, teral ñi nga xamante ne ñooy ñoo ko gagné euh, ñu ko def ay concours jox ay kado xale yi nga xamante ne ñoo gañe concours boobu ndax nag ci wàllum diine rek lay dox moom mi nga xamante ni moo di euh, Nancy Dieng ki nga xamante ni moo di Omar Deme moo mu def témoignage boobu moom tamit bis bangook le 6 avril la fële ca Grand Thiès ci jumaa ji mi ngi ciy woo ñëpp képp koo xamante ni rek siqante nga moom jàmm wóllëre bu yàgg wóllëre ak euh, yi nga xamante ni ñooy ay voisin ak ay am di jàmmam jullit yeeg taalibe yeeg bàyyiwul kenn ki nga xamante ni moo di Omar Deme mi ngi lay woo ci bisam boobu di la 6 avril fële ca Grand Thiès ci jumaa ji ah, mi ngoog nag lii moo nekkoon ah, ñett titre sommaire yi nga xamante ni moom lañ indi loon ci eh, event ci tendance du net waaye du ma def rek bala maa jeexal dikk génn ci li nga xamante ni moo di ambiance du week-end ici à Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar mi ngoog tey jii nga xamante ni mooy ci samedi bi Eh, fële nga xamante ne moo di Sams Prestige ki nga xamante ne moo di Aba Show Aba Show nag mi ngi nekkul doomu Dakar kese Aba Show doomu Sénégal la Aba Show doomu Afrique la doomu monde entier la ndax képp koo xamante ni nit koo xamante ni rek yaa ngi bëggee ki nga xamante ne moo di Aba Show yaa ngi koy suivre à travers le net yaa ngi koy suivre à travers la télévision yaa ngi koy déglu tamit fi nga xamante ni moo di ci rajo yi Aba Show Aba No Stress moom mi nga xamante ni jamono ji moom tamit ci wàllum No Stress moo fi teg tànk mi ngi def li nga xamante ni transformation bu doy waar ci li nga xam fi nga xamante ne moo di Sénégal moom tamit mi ngi marqué ay empreinte am Aba Show mi ngook moo ñëw fi nga xamante ne moo di tey jii si ngoon fële ca Sams Prestige entrée bi nag 2000 la euh, VIP 5000 la nee naa la Aba Show sëgam Dakar lay woote ni ñi di bàbbeekoo fu nekk di dem di dàq stress asamaan nag moom mi déplacé wu jóge Dakar ñëw fii fekk si waa Thiès ñëw fii fekk si waa Thiès ngir bëggal leen ngir dàq stress ngir fo ak ñun reetaan ak ñun eh, mi ngoog nee naa la boo tëddee sax xaw a eh, xaw a jaaxle tuuti wala nga amee insomnie wala dara yaa ngi taal sa téléphone jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di Aba Show ngay reetaan di bég di kontaan moom nag Aba Show moo fi ñëw tey jii nga xamante ni moo di ci samedi bi eh, fii ci sam Prestige tey ci guddi à partir de vingt h mi ngoog nag euh, publicité baa ngoog yéen a ngi gis annonce bi noonu Aba Show la nee naa la Ceeskaay bu ko kenn rate Ceeskaay mi ngoog Aba moo leen fekk si Aba mooy leen wuy si génn leen ngeen ñëw euh, wuy ji Aba def show ak moom fële ca Sams Prestige reetaanandoo kaf ndoo reetaan bégee ndax ki nga xamante ne kat moo di reetaan dafa baax ci doomu aadama ndax reetaankat mi ngook dafa baax ci doomu aadama day def lu bari ci yow nit foo toll rek danga war di bégee di xàppi di reetaan abaa loolu lay dund te nag loolu la bëgg a dundandoo ak sénégalais yi moo tax mu ñëw fii nga xamante ni moo di ci Ceeskaay bëgg koo dundandoo loolu complicité boobu entre public am bi nga xamante ni moo nekk Cees ak moom Abba Show nag mi ngoog tay la fële ca Sams Prestige à partir de 21h entrée bi 2000 la VIP 5000 la mi ngoog bu ma fa jugee nag ci Abba ba tey rek. Euh, ci euh, ambiance du week-end la ma dem ci ki nga xamante ni moo di artiste bi nga xamante ni actuellement mooy def feuille flamme fi nga xamante ni moo di Ceeskaay artiste bi nga xamante ni 100 cent ambiance rek lay def borom doxantu leen mi ngoo kooku mooy Pape mbay ak le groupe Misaal moom tamit si mu amal li nga xamante ni moo di ambiance de l'indépendance mu koy amal fële nga xamante ni moo di ci Palais des Arts euh, Pape mbay nag ak groupe am di Misaal mooy def ambiance 100 pour tey jii fële ca palais des arts moom tamit am euh, dem leen ngeen bege jii nee naa la ambiance bi 100 pour cent la week-end bi Cees kaay dina xumb dina neex nee la nga dem Euh, Sams di nga fa fekk Pamba di nga fa fekk euh, Abacho nga dem pale des Arts di nga fa fekk ki nga xamante ni moo di euh, Pambay et le groupe Misaal kon na ku ci nekk rek na nga génn doxantu fu waay neex fu waay nekk rek na nga dund li nga xamante ni moo di ambiance dund fête dund kaf dund ree dund bége ndax weekend la ñuy wax te weekend nag lépp nag daf ñoo war a sori muy stress beeg xalaat ju bari jeeg lépp dañoo war a bége ndax weekend lañ ne dañ koo war a dund fi mu toll nii weekend bi neex mi ngoog Aba fële ca Sams Prestige Pambay Mbaye fële Palais des Arts Ouais, tamit ñuy préparé li nga xamante ni soirée bu soirée de l'indépendance ñu fas yéene ci amal artiste bu mag bi kookoy kan kookoy Seka Seka le Royal Band 100 live le 5 avril au Sams Prestige le 5 avril lay amee moom tamit nag bu 4 euh, avril ba ci ëllëg sa Seka

di nga dégg mi nga xamante ni moo di soom boobu nga xamante ni dafa fees dell ci xol yi muy Samba Alaar ndax mag ñi mën nañ ko fecc ndaw ñi mën nañ ko fecc mi ngook Secka moo woote le 5 avril au Sams Prestige de Thiès euh, soirée indépendance euh, mi ngook loolu moo nekkoon li nga xamante ni moo di ambiance su euh, week bi fii ci Thiès ci seen première numéro Euh, tendance euh, du net mi nag duma def lu dul rek bala ma jeexal rek dikk ak yéen ci li nga xamante ni moo di euh, pharmacie yi nga xamante ni ñoo ay garde ndax nag du neex ba ñu fàtte ñi nga xamante ni ñoo tëdd ànd ak tawat te nag feebar nag gannaaw day bette du loo xamante ni nit a koy programmer wala mu lay tàggu bu muy ñëw malaise bu ne mën na laa dal ci diggante bi waaye nag moo tax sunu pharmacien yi ñoom tamit chaque samedi rek week rek dina am pharmacie yoo xamante ni dinañ ay garde foo boo demee rek ci pharmacie yooyu garab goo soxla euh, di nga ko mën a am ak heure bu mu mënti tem boo demee ci pharmacie yooyu di nga ko am ñu njëkkee ci nga xamante ni moo di pharmacie Kayor nekk fële ci rue sans rue sans soleil seen numéro téléphone nekk 33 952 03 03 ñu dikkaat ci pharmacie Boukar maam Boukar nekk fële ci Mbour 1 en face hôpital Bartimi c'est numéro téléphone 33 951 1256. 56 waaye tamit pharmacie Yaay Bintu Jeeju nek fële ca R100 euh, en face grande mosquée euh, Tali khelga ñom tamit de numéro téléphone nek 33 951 95 50 ci pharmacie bu mujju bi pharmacie Emmanuel nek gey euh, Gazobil nek fële nga xamanteni près du rail Nek route de Saint-Louis Té numéro téléphone ñom tamit nek ci 33 951 0020. 20 nak nag nek pharmacie yi nga xamanteni ni ay garde ci euh, week-end bi waye nak bala maa jeexal rek duma def euh, souhaiter joyeux anniversaire ñi nga xamanteni ñoy les natifs de ce jour kep ko xamanteni tay ji di 30 mars n'ek na ce jour anniversaire ñi ngi lay souhaiter par ma voix toute l'équipe de Thiès Info ñi ngi len di souhaiter un happy birthday di leen euh, wax longue vie santé bonheur prospérité lepp lu ngeen mën ren rek yalla ngeen ko mën dewen waye du def lu rek souhaité ah spécial Anif ak jumelle yi nga xamantene ne tey la seen bésu juddu ki nga xamantene modi ki ne Fashion madame Nia ak Amina Ly madame Lo ñom ñoom ñoy ñooy reine du reine du jour ñom ñoy euh, reine du 30 mars ñu ngi leen di souhaiter par ma voix toute l'équipe de Thiès Info di leen wax un happy birthday to you joyeux anniversaire na leen bés bi seen bés la Mm, enjoy leen ko <clears throat> soyez heureuse yéen ñi nga xamante ni yéenay fêté seen anniversaire ndax bisu juddu nag di bisu nag kon nag bis bi nay neex kon nag di remercier ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi teewoon doon seetaan li nga xamante ni moo di Thiès Info di dikkaat yéen ba tey rek ci li nga xamante ni moom lañ fi jotoon indi woon ci tendance du net avant première cérémonie de <coughs> Omar dem ak ki nga xamante ni moo di Baye artiste comédien nekkoon invité de l'émission feeñal an mu doon mu doon seet jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di Kaja waaye tamit dikkoon nañ ki nga xamante ni moo di le policier Mouhamadou Amul Yaakaar Diouf moom tamit mu dikkoon nag ñun ci li nga xamante ni noonu lay defee liggéeyam ak li nga xamante ni moo waral turu Amul Yaakaar bi waaye tamit yéen ko gisandoo ambiance du week bi ak ñi nga xamante ni ñoo pharmacie yi nga xamante ni ñoo ay garde mi ambiance du am tendance du net non lay démé ça, su nek rek hein. mi ambiance du week-end bi sax mi ngi may yobalé lepp lo xamanteni rek jot naa xew ci net bi te mu gën a dinañ leen ko indil ah, dinañ leen ko indil en détail fi nga xamanteni modi seen émission tendance du net chaque lundi chaque mercredi ak samedi lay am fi nga xamanteni modi en direct ci Thiès Info Thiès TV nga koy am ngay jakkalo ki nga xamanteni modi Sister Eva mu lay indil ça, su nek rek Hein? information yi nga xamanteni ñoo au top ci net bi ñi nga tendance ci net bi nañ lundi prochain inshallah, ci seen numéro tendance du net euh, information yu gën a au top information yu gën euh, tendance kon li numéro tendance du net ngeen ci ngeen ci ki nga remercier suivre à travers à travers Sénégal et à travers partout dans le monde Vous di suivre li nga xamante ne Info Chess TV Vous allons rester scotché toujours rek Ça, su une euh, émission yaa information divertissement information religieuse, information ambiance lépp rek fi nga koy amee politique sociale lépp rek Thiès TV Chess Info nous allons en live en direct je vous dis merci beaucoup et de passer une excellente week-end bonne fin de soirée